bu yónnee ci moom war naa mën a nekk ku ne xam ne diggante soxna Bali Muntaxa ak Cheikh Souley jaaj kon suñuy ndee teraanga yi toll nii ñaar ñi nga xam ne ñooy ay soxnaam day xaritu Cheikh Souley Diagne soxna Sulo soxna Maam Jaara Kan ñuy kenn ci Cheikh Souley Diagne ak xaritam bii nga xam ne doomu ndeyam la muy Serigne naa Sall mu baay aboo Sall ñu ñëw fekke teraanga yu rëy yii nga xam ne mooy teraanga yi soxna Bali Muntaxa danañ ci am mbégte lool soxna si nag dafa sant dafa wax ne mboolem li nga xam ne moo war ci bis bii moom la war ndax su lay doomama xaritam la taalibeem la te jëmmi sëñ Tuubaa rek tax loolay teraanga yi nga xam ne moo bàyyi ko ci soxna Baali Muntaxa jëm si kan kër Seex sa su lay jaaj na moo ngi leen di sant waaye moo ngi leen di gërëm loolu laa indi woon kàddu yi soxna Baali Muntaxa asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di sant bu baax a baax wax dëgg yàlla soxna si moom digganteem ak Souleye moom taalibeeg doom la te soxna si mi ngi koy doxal bu baax a baax